yéeg si leen ak jàmmul ci Pastef Média TV les des patriotes abonnez-vous nga xamante nii bu leen teelu arrêté publié woon nañ ko suñu page Facebook ci guerre civile la ñu jëm Sénégal nag boo waxee ñu ne guerre civile mënu fee am mais lu mën nekk la li tax lu mën nekk la mooy bu fekkee ni dafa am ñoo xamante nii nguur moo leen ngemb di leen fay di leen jox ay arme di leen xont loger leen te du ñuy alkaati ñuy wër di agressé sénégalais yoo xamante ni ñoom violent wuñ yoruñ ngànnaay seen réew moo leen ñor te lépp ñu ngi koy def de manière pacifique sénégalais yooyu ñuy agressé bu ñu demee ba xam ne seen état mënatu leen aar ñoom itam dañuy jël seen matukaay balaa nervi yi di dal seen kaw ñu fayu te fii la Macky Sall ak nguuram bëgg yóbbu sénégalais yi moo tax chaque fois ñuy alerte bi ci mujj mooy kaaw Guy Marius Sagna ci ñaniñ dinañu revenir ci cas bi nu mu demee te la fa xew bu fekkoon ne ñoom Guy Marius Sagna dañu décidé woon fayu tey ay bakkan rot na ngay dégg mais heureusement que Guy Marius Sagna moom bokk na ci activiste yi gën a sedd ñun taam daf ñu sax dépassé ndax am na yu muy muñ en tout cas bu doon ñun la ñoo koy dund amaan na mën na jëlee leen proportion. avant Guy Marius Sagna itam Kër ma Massar également ñenn ci population bi dañoo amaloon manifestation de si weesu ngir ñaawlu condition seen dëkk seen maire envoyé leen ay nervi ñu leen di doori kurpañ ci kanamu takk der yi beneen bi ci mujj nag moom ay menaces la. benn ancien bandkat boo xamante ni ñun duñu sax jaar ci turam parce que tur lay wut instant bi ci wutum siiw gu métti la nekk mais jàpp leen ni kat la woon bi moromam yi di jàng ci daara ak école yi mu ngi wër tànn bee rek xumbal yi topp waa pirate de jëppal xam nga waa pirate de jëppal ñoom ba ñuy tollu seen digg jamono jeunes yu bari dañ leen faawoon bëggoon mel ni ñoom parce que dañoo révolutionné pecc mi indi ay chorégraphie yu bees jeunes yu baree bari defoo leen ay fans moom ngóor si toppoon seen ginnaaw ba gaay sarax ko dugal ko seen benn clip muy mband mband yu métti yii rêve bi gënoon rëy mooy nekk mbandkat international jamono dem ba yàqu ak nguuru ki sàll parce que nguuru Macky ñoom dañu delloo téeméerat ci ginnaaw mu dugg ci politique léegi dem na ba am audace naan dafay menacer Pape Djibril Fall parce que moom Pape Djibril li muy wax arrangé wu leen. mais il n'a qu'à am na bàyyi di ŋàññi président Macky parce que président Macky lu mu def moom deful xaj bi président Macky moom la yàlla fal muy dimbale Sénégal moom qu'est-ce qu'il Sénégal Pape Diouf Fall nekk ci télévision rek ibbi gémmiñam di wax di xas te defoo dara pour Sénégal ah ñu ne la yaa mën a wax rek yaa mën a wax bu la tax wax loo xamut il est trop bavard na bëri dina tëj gémmiñam gi parce que maa ngi koy waajal yoo xam ne dina benn journaliste boo xamante ni moom analyste la te la plupart lu mu wax teggi am na lu mu fa teg ëllëg ñu déglu ko xool lay njariñ ci kàddu yi mu jëbal bu dee di defar réew moo la ñor mais dañ koy menacé ne ko déedéet waxal ni Macky Sall moo fi def lii par force. alors que RTS mi ngi nii tele bu ñàkk njariñ bii nga xamante ni ñun sénégalais ñoo leen di fay mais benn parti lañ fi nekkal muy APR boo leen woowee ci événement sax du ñëw te ñun sénégalais ñoo leen di fay moom it dafa yoru bu mu ëpp mu Guy Marius yam mais bu doon keneen dafay porter plainte ñu arrêté mbandkat bii nga xamante nii tekkiwul dara te moom Pape Djibril Fall nag ni jël ay marukaayam ndax ñoom bu la jéemee woo mënuñ la am dañuy fexe yàq la donte doomu aadama nag lu mu def mu sotti suñu borom da ci ànd mais na taxaw ci ay gardam ndax force occulte yi nekk ci nguur gi duñ ko may dara Sénégal nag bari na ñoo xamante nii au lieu que ñu wax ci lii nga xamante nii fa mu nar a jëm baaxul suñu réew dañuy nekk di wu ci xew ci réseaux sociaux yi maanaam ay faux comptes yu saaga suba ngoon te xamul ñooy kan donte dañ koy ñaawlu créer faux compte utiliser turu jàmbur ak foro jàmbur di saaga nit ñi moom rafetul jekkul moo xam fu mënti bokk mais dafa lu ko gën a garaaw te waa nguur gi ñoo nekk di ko def mooy ay nit yoo xamante ni ràññee nañ leen xam nañ fi ñu dëkk ñu armee leen dëkkal leen di leen fay chaque mois pour ñuy wër ci dëkk bi di agressé activistes yi ak ñi nga xamante ni ñi ngi xeex ngir benn mbir léegi yamatuñ ci dañuy sax menacé moo tax ñu bëgg ci def benn taxaw seetlu leeral yi fi mu jaam ak fan lañu nar a jëm bu fekkee na nguur gi arrêté wul di def yëfu banditisme yii ñu bëgg a continuer réew mi ndax ñoom bu dëkk bi tàkkee dañuy daw ak seen i njaboot. ñu dooree ko kaaw Guy Marius ci agression bi mu subir te Nianing bokk ci communauté rurale bu Malicounda bu Mbour te Maguette Sène nekk tey directeur kudd di seen maire foofu lan moo fa xew ak lan moo fa yóbbuwoon Guy Marius Malicounda dafa am benn association bu fa juddu ñu koy woy jug jot na te ndaw dëkk ba taxawal ko ngir sàmm intérêt village yëpp moo xam ñanin mbaaliñ warang soose warang séeréer susan bambara ak li ko wër ñoom nag depuis lu yàgg ñi ngi xeex ngir seen suuf ñu bañ ko caxat-caxatee ndax le 26 octobre 2016 meeru Malicounda di Maguette Sène nekk tey directeur COUD dafa indi woon benn tubaab di nationalité belge bu ñu naan Philippe Selfood ne dafay amal benn projet résidentiel et ci espace bu toll ci 18 hectares moo nekk nii ngeen seen moom Maguette Sène barki démb génne na benn communiqué ne mosul attribuer 18 hectares mais document baa nekk nii moo fi indi woon tubaab bi convention bi ñu signé woon moo nekk nii daal di defaat beneen attribution boo xamante nii daf ko jagleel beneen société ci même zone bi nga xamante nii moom la joxoon tubaab bi parce que ci diggante bi tubaab bi jot na fi dugg kaso kenn xamul lan moo ko dugal kaso tubaab bi jotoon na fi jéem a xaru kenn xamul lu ko waral tubaab bi tamit profité nañ génnee ko réew mi te ba tey dellu si waatul mais boobaag léegi non seulement projet bi réalisé wuñ ko mais aussi waxuñ fan lañ nar a jëm ak 18 yooyu noonu lii moo nekk di xew actuellement ñaniñ ba pare ñu bëgg koo ndëpp ndëppal léegi nag comme ko waa association bi depuis des années ñoo ngi xeex mais kenn déggu leen ci lañ invité Guy Marius Sagna ñaniñ ngir toog waxtaan pour dossier bi sénégalais yëpp mën cee jot foofu nag la directeur u kudd di Maguette Sène nekk meeru Malicounda ak ña ko fa teewal tàmbali def ay manigance pour rencontre boobu noonu bañ a am bi dama ci jotoon ay information parce que bari tey depuis démb ñoo ngi woo di ñu jox xibaar réunion bi jóg jot na de ko initiation bu lan moo taxoon ñu war defar réunion bi mooy ñu wax ci dix-huit hectares yi ñu ne nañu def réunion réunion boo xam ne dañ koy defoo école buur buñ ko waree defee école buur directeur bi dañ koo menacé ndax jokkoog naa moom téléphone bi ma ko laajee dafa ne réunion bi boo ko defee foofu dañ lay dàq nu mu gën a gaawee nee na dafa jot ay instruction ñu jële ko foofu ñu jëlaat oto informer nit ñi pour ñu war a ñëw ñëw fi nga xam ne moom mooy war a war koo changé Oasis ki nga xam ne moom moom Oasis moom itam ñu menacé waat ko bi gars yi demee bi gars yi demee fale ñu fekk leen fa Guy Marius Sagna di expliqué gars yi fekk leen fa saaga leen ne leen doo leen ko fi waxee parce que lu waral gars yi dem foofu dañoo ne woon duñ ko mën a def foofu gars yi ne nag nañu dem ci buntu ba bu ñu demee taxaw foofu pour filmer ko wax ne fii la 18 hectares yi ñëw ak Guy Marius Sagna ci la leen. ay militants yu bëri ay kaar jóge fu ne ñëw wàcc ñeniñ tas tas gaa yi xeex ak ñoom yooyu yëpp moom mooy problème bi gendarmerie ñëw mu nekk loo xamante ne lu lu lu métti la léegi nag li ñuy laajte ndax kenn amatul droit def réunion ndax kenn amatul droit invité Guy mari Sagna mu ñëw. ñoo ko déggandoo ñoom Guy Marius Sagna dañoo décidé woon dajaloo ci benn bërëb ak doom ñeneen ñi waxtaan ñu aaye leen bépp bërëb ñu ne kon nañu dem fa problème ba nekk mooy 18 hectares yi ñu bëgg séddoo taxaw ca mbedd ma wax li ñu war a wax nervi yi daal leen di fekk foofu noonu agressé leen li ci xew lépp yaakaar naa yéen ko gisandoo ci vidéo te li yéeme ci histoire bi mooy quand ñu màgget seen ñi ànd ak moom benn argument la ñuy layalee agression bi mooy yoonu Guy Marius Sagna nekku ci waru fa woon dem. nit koo xam ne aussi doo préfet doo gouverneur doo sous-préfet quand même bu problème amee atteeguñ problème bi ban problème la lan moo ko indi nga taal sa oto dugg ci béréb jàmbur. ah yooyu tamit di ngeen ko war a xoolaat. bérébu ci dugg ci bérébu jàmbur fan mooy bérébu jàmbur. est-ce que moom il est de Mbour. bu nekkul de Mbour amul droit de Mbour. lan la moom ba lan la signifié préfet la. ah préfet la. Guy Marius Sagna c'est un citoyen de Mbour amul droit dugg Mbour. du du gouverneur. mais amul droit du mais du fu mu dem mairie la affaire problème suuf la. donc yooyu tamit da ngeen koy xoolal. un jëmm yu waaye di yii ñoo yor Sénégal tey maanaam kon léegi réew mi ak nguuru Macky Sall Sénégalais bi dafam dëkk bu mu war a dëgg tànkam ak dëkk yoo xamante nii dafa am sens interdit wala buñ la falul amoo ndombal tànk waroo wax ci problème askan wi lii moo garaaw te fu mu nar a jëm ndox amu fa. waxuma la sax sénégalais mais même ab étranger ab doxandeem bu jugee bitim réew dugg ci biir réew mi te jugul ngir yàq fu ko neex dugg fu ko neex génn. waxuma la ab doomi réew boo xamante nii moom dafa tayle léppam ngir Sénégal Guy Marius Sagna moo ci gën a yaru ci activiste yi doo ko dégg sax mu wax lu ñaaw jëmale ci ñi nga xamante nii ñoo nekk di yàq Sénégal actuellement même manifestation bu ko takk der yi di jàpp du nekk di bañ wala di jëm révolté wu kon kii méritowul li ko Samba booy def ki démb te ñoom waa FRAPP Guy Marius ak ñi mu àndal bu ñu décidé woon fayu am ñu ci gaañu ba tey waa nguur gi ñu ngi takk rajo yi di wër fépp naan force occulte yi leen doon wax ñoo nekk nii ñii ñoo bëgg a taal mi mais xëy na yàlla li gën lay def ànd nañu ak dal ba topp leen ci terrain bi ñu leen bëggoon woo muy raayante moo tax ñu waxoon leen ni force occulte yi terroriste yi agresseurs yi ñee ngi ci nguuru ci sàll ñoom rek ñoo fi organiser ay meeting di dóorante ak saagante seen biir ñoom rek ñooy wër di agresser sénégalais yi fii la réew mi toll. ñu ñëw aussi Kër Massar foofu itam lan moo fa xew ñenn ci population bi ñoo dajaloo ci benn collectif tuddee ko mouvement sàmm suñu dëkk. parce que léegi li neex senegal mooy askan wi xaaratuñ kenn di ñëw di saafara seeni i jafe-jafe ñoom ñooy dajaloo ci benn kuréel boole seen i naqar ngir xàccandoo dóorandoo loolu la waa Kër Massar def ngir xeex li leen métti seen dëkk benn mooy désorganisation ba fa am ak yeneen di jafe-jafe yu ci mel ni wàllum insécurité te seen maire defu ci dara ci lañ décidé organiser benn rassemblement samedi passé ngir fësal seen naqar bi ko maire dëkk ba yëgee muy Moustapha Mbeng bokk APR ci la def benn audio di woo booy topp ci ginnaawam ngir ñu attaqué ñi war a organiser manifestation bi maanaam di leen woo ci violence. daga nag ñun APR moom suñu waxante dëgg rek on a une jeunesse ba nga xam ne dañoo muu suñu jeunesse bi duñu ay tapet de mais soo ñu xoolee comme ay tapet parce que opposition bi ñooy wax opposition bi ñooy attaqué opposition ñooy génn di jéem a di jéem a di jéem a xeex ñun opposition bi sax buñ programmé marche ñun